alhamdulilah sant yàlla war na ci jaam. walaay. féeteeg Seydil Jamil doy na mbég ci wàllu tijaan. alhamdulilah sant yàlla war na ci jaam. walaay. féeteeg Seydil Jamil doy na mbég ci wàllu tijaan. tijaan. yaa rabbi noo. dolli nu saxal mbaax dëppale noog sidil jamil ci soppi tiijaan sidi jamil jëful lu mbay jëful woon sidi jamil royul lu mbay royul woon ku roy ci sidil jamil mel ne roy nga ibnu usmaan sidi jamil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 di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di ñaan yàlla bërëb bi ñu teew ci tey muy dëkk bu tedd bii di dëkk suñu maam Seydil Hadji Malick ñëw joxe ci suñu ziyaara ak ñëw di ndokkeel e, soxna Ndey Mariam e, Sy Jamil Eh, ñu ngi ñaan yàlla bépp xéewal ak yool bu ñu fi taataane yàlla nañ ko yàlla boole ak bokki jullit yépp fa tabaarakallah tey nag ñu ngi am mbégte eh, di dox ci tànk yoo xam ne eh, mooy tànku ñëw seet ci soxna si ngir won ko euh, jéego yi nga xamante ni jot nañ ko def ci ay orientation ak i ndigal yum joxoon yoo xam ne euh, ay at a ngi nii ci ginnaaw ñu sóobu woon ci di ko jëfe euh, ba yàlla dogal tey yàlla defal ñu ci résultat macha allah loolu moo di lan Euh, soxna si daf ñu waxoon ne dafa am ñeenti mbir yoo xam ne euh, su ngeen ko toppee lépp lu ngeen bëgg ci seen action yàlla mën na leen ci defal ndam ndax mooy ñeenti yi nga xam ne mooy ñeenti keno yi nga xam ne moo moo moo yenu doxinu jamono mooy communication mooy finance mooy organisation euh, mooy éducation euh, mu am ci nag benn fànn bu nga xam ne ñu ngi ko toppoon euh, di ci def ay jéego ba tey yàlla dogal ñu taxawal site bii di Al Misbah fa tabarakallahu da xam ko muy site boo xam ne li ko tax a jóg moo di patrimoine bi nga xamante ni suñu maam Seydil Hadj Malick moom la bàyyi euh, te njaboot gi war ko jëfandikoo te boobu ba léegi mu mel dañuy làmbaatu te am loo xam ne euh, sunu sunu sunu maam moo ñu ko fi bàyyil mu nekk sunu mu war a nekk suñu njëriñ nan la ñuy def ba jëfandikoo patrimoine le loolu moo tax sit bii di Al Misbah jóg euh, muy kon fànn yi ma ñeenti fànn yi ma leen doon wax sànq benn bi muy wàllu communication moom la ñu topp di ko euh, di ko gëstu di ci liggéey ba yàlla defal ñu tey taxawal nañu site bi fa tabarakallahu am nañu équipe technique boo xam ni fépp fu ñuy dem dañuy déplacé wu ànd ak ñoom ah tey nag ñu ñëwoon seeti soxna si won ko résultat wu liggéey bi waaye itam ñaanaale ko itam euh, mu sànni ay baat yoo xam ni dafa jëm ci gën a feddali importance su communication euh, jëfee communication boobu lan la la mën a ci njëriñ ñakku jëfé lan la mëna indi ci retard ci sa wàllu liggéey euh, kon soxna si euh, dañuy bañ guddal ñu yemale fofu cadeau gi rek ah jox la nga nga nga sànni ay kàddu si Malick jërëjëf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 ndax nit ki suba so yeewoo da ngay doole sante yalla ndax limay wax toujours ni nit a ngi hôpital nit ngi ci armée li te ñafa teud kon ñi ngi noy di dox di wax kon nañu Yalla yalla defu ñu rabu àll nit lañu def kon nañu sante yalla ah, di leen nuyu di leen ziar ci seen déplacement bi ngeen ñew ba Dakar ñew fi pour nembu ki si auto si Hajj Malik ngeen ñëw ci kër sëñbay Bay fekk ma fii ñaan ma ni naa am kàddu yu ma sànni ci orientation yi ma leen joxoon ñi ngi jiital ci nuyoo bi xalifa bi muy sunu pap sëñ Bay si Mansour di sunu lépp nag ah ndax euh, toog na toogaayu xalifa bi toog na toogaayu sëñ Moustapha toog na toogaayu sëñ Bay Abdou ci man ndax fu mu toll dafa may nemmeeku di ma yónnee bërki démb rek la yónnee ci man waaw ma ne nag maa ngi koy ñaanal yàlla ah wax dëgg yàlla ndax nit ki teraanga teraangaa koy fay waaw xam naa moom yooyu bëggul sax ku ko kii waaye daal ma di ko yëgal ci seen euh, communiqué bi sit bi di ko ci sant di ko ci gërëm waaw ndax li ay magam daan def di ko jëflanteeg ñun loolu ci tànk yooyu la toppaat waaw ma ne ki mu yónni bu bu ndaw li rek dafa doy waxatuma nag muy yëkkati leneen di ko def kon ñu ngi ko ci sant bu baax a baax ah di nuyu sama Pape Malick moom mi nga xam ne mooy porte parole bi ah di ko nuyu moom tam ak njabootam di nuyu sama Pape Maodo si ak euh, ñoom bàjjat day ak xale yeeg ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaw di nuyu njabootu sëñ May Abdou ak njabootu Seydi Jamil jiital ci sëñ Mansour si Jamil di njabootu sam Pam Mansour ak euh, sam waa kër maam yeek waa kër sëñ Babacar waa kër El Hadj waa kër euh, ma Abdou waa kër ma Habib waa kër maam Mansour ñëpp ñi ngi nuyu bàyyiwuñu kenn ñëpp la ñuy nuyu waaw di nuyu nag. Euh, sama bàjjen yi ah ñoom bàjjen euh, umoog bàjjen fat si di leen nuyu di leen ziar waaw di nuyu itam nag spécialement bàjjen Aïda si ndax bi ma ñëwee Tiwaawan ci moom laa wàcc waa ndax yàlla ndax wax dëgg yàlla taxaw na taxawaayu góor taxaw na taxawaayu jigéen ndax nee naa ko yow yaa nekkoon ak sama maam du tey yaa nekk ak ñaari xilaafa la yor waa xilaafa sëñ Mbaye sëñ Abdou ak xilaafa Pape sëñ Mbaye Mansour ma ne ko loolu cër la bu la yàlla jox santal yàlla bu baax a baax kon nag ñi ngi sant di leen sant ah, di nuyu nag Pape Mansour mbay ak délégation bi mu àndal ñoom oustaz ñang ak njabootam gi mu àndal yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar te di leen delloo seen wàccuwaay da nee naa yàlla moo fonk doomu aadama man képp ku ma gis rek même xale bu gën a tuuti sax yëkkati naa la parce que nit ku nekk danga nga bëgg ku la reconnaître xam nga reconnaissance dafa am solo yàlla reconnaître nañu mais ñun suñu reconnaissance ci suñu diggante bokkul ak bu yàlla ñun dañu war a reconnaître jox nit ci respecté nit waaw te loolu mooy wàllu éducation waaw moo tax nag dama ni leen tey jii bu nit juddoo ci clinique rek temps juddu na dañ naan ci clinique bi une fille un garçon rek chrono bi dem na waaw temps mi ngi nii naissance ngi nii naissance lan la mooy mooy mooy jur éducation éducation bi lan la mooy yar bi léegi nag diggante temps bi ak éducation bi croissance moo ne ci diggante bi loolu doo nga leen wutale temps yàlla moo ko moom mais éducation ak croissance doomu aadamaa ko moom mooy xel maanaam doomu aadama xel la moom doomu aadama day orienté xelam jëmale ko ci lu koy avancé loo lu koy yokk luy yokk foam luy yokk xam-xamam luy yokk jëfam parce que àddina bi lenn moo ko yor muy action action moo ko yor nit ñi dañu war a di réagir di participer di agir waaw loolu moo yore société bi de ce nag ci biir éducation Euh, dafa am lu ci am manam adina bi yëpp yëpp yëpp ci éducation lay reposer c'est éducation moy piloter lepp comme ni ko waxé ni que les quatre poteaux moo yor adina tey jii éducation bi moy doomu adame bi moy individu bi mais individu lu koy doxal moy nit ki il faut que ngay communiquer parce que tay auto mo len indi communication la li appareil euh, télécommunication la ci lii jaar pour communiquer mon indi site internet téléphone bi ngeen may woowee dañuy ñëw dimanche communication la waaw kon la communication gannaaw éducation doomu aadama bi ci euh, ci communication lay dox pour mën a def lépp lu muy def waaw mais communication dañ koy organiser soo ko organiser wul du dem mais loolu yëpp pour nga mën ko def dafa am lu koy alimenter muy finance soo amul alal mënoo dem boo amee yar amo communication do dem bo amé riyat am communication to organiser woko do dem yoyep nak bu amé ta amo khalissam do dem kon tout est lié adina bi lu yomb yomb la yalla définir adina logique la mathématique la 1 plus 1 égale 2 composition binaire la 0 ba 1 le vrai ou faux légui dañu tollu niveau bo xamné adina bi ñepp yew ñepp ñepp yew lu ñu fi expliqué amatu fi parce que lépp mel na la làmp waaw lu la jafe woon yomb na waaw kon nag dangay bokk rek waa boobaa bokkoo waaw mais lépp lu luñ fi c'est-à-dire ak yooyu amatu fi kon nit ñi ci li ñuy li ñu war a xam ci seen àddina xam nañ ko pare xam nga lan moo fi def jëf pour nit ñi jëriñu waaw mais comme àddina bi nag dafa am dysfonctionnement euh, problème yi bare nañu. Euh, ñàkk foi bi bari na anarchie bi bari lépp bari na waaw li fi nekk nit ku nekk rek na nga gérer sa périmètre fexe ba yow li nga am mu baax li nga am su baaxee tey jii boo gisee àddina individu boobu ma doon wax tey ci éducation chaque individu yaa mën a defar sa environnement boo defaree sa environnement mooy sa kër mu yeneen kër yépp defar mooy quartier bi. quartier bi su defaree mooy jur ville ville su defaree mooy jur région région mooy jur pays noonu la affaire bi fonctionné ci individu lay jóge sous ton chacun yaay defar li may wax ni Sénégal li koy defar ba àddina bi defaru tey bu ñu toogee rek ni tey ñun bailleur de fonds moo ñu mënal wala leneen bu ñu la doon jox ay milliards soo ko organisé wu li jëriñ dara kon nag yëf yi yëpp organisation la te organisation lan la dégg-dégg xam nga mën nga déglu te doo dégg dégg li xale yi naan da ngay dégg daaj waaw man nga mën nga toog ni dégg ñuy wax mais déggu déggoo li ñuy wax lan la waaw parce que ñun depuis de siècles depuis septième siècle bi léegi yàlla mi ngi wax ak ñun waaw alxuraan mi ngi fi xadi yeneen salaa sallam mi ngi fi téere mag ñi ñi ngi fi sa maam lu mu bindul ci kifaayatu raaxibiina zajrul xulóob bind ko ci faatixalul tulaab lii xew ci jamono ji boo xoolee moo kifaaya ñoo dëppoo alhamdulilah sant yàlla war na ci jaam féeteeg siydil jamil doy na mbég ci wàllu tiijaan alhamdulilah sant yàlla war na ci jaam. wallaahi. féeteeg Seydil Jamil doy na mbég ci wàllu Tijaan. Tijaan. yaa rabbi noo ngi lay ñaan. amiin. yaa rabbi noo ngi lay ñaan. amiin. قبل سيد الجميل تسوبتي جان سيد جميل جفل مباي جفلون سيد جميل ريل مباي ريلون كريتي سيد الجميل ملنا رينغ ابن عثمان بجميل جميل وخلوا مي وخلوا